supporté monaco ne ko dem Suisse. wa ah kon Es est-ce que ya nga supporté je sais que c'est dur parce que man sa papa xeyna awma jotu ba xawma di chaque fois dila wax ni sama xel mi ngi ci yow wala ma ngi lii yarew ñu ma noonu waaye nga xamni ma ngi lay top même su fekke sax dama faible mënuma dara ni mais ma ngi lay top tu vois. angulum ci tegaat. Uh-huh. Uh, nit du xeexee kanam di xeexee ginnaaw booy xeex da ngay jàkkaarloo ki ngay xeexal donc ça veut dire que waale coup yi day juge fu ne. waaw benn donc c'est un boo xamante ni lépp lu ma doon wax tey maa ngi koy dund. bilaa walaay. daag sëñ Tuubaa. mais tey tey Wally Seck euh, euh, euh, voilà number one comme ni ñu koy waxee tout le temps nga def euh, euh, li nga xamante ne moom de Paris ba tey ñu nekk ci trajectoire bi nga xamante ne ci la ñu nekk balaa karaajo duñu may élément bi ñuy dugal ci ligne bi Waly Dioye ñëwaat jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy orchestre bi ko papam bàyyi en quelque sorte en grosso modo ci li nit ñi wax Waly tey bu doon wax ci Ramadan lan la waa waaw Ramadan day yàlla moo dogal suma bërëbu liggéeykaay la woon ma ñëw fa doon liggéey en tant que employé wax naa ko fu nekk man liggéey naa Ramadaan bi ma commencé xam li may fayeku Ramadaan wala Ramadaan li muy fayeku motul huit ans liggéey naa Ramadaan ba sam papa ma jox la ngay musuma xam lu may fayeku musuma xam la fa musicien di fayeku Zénith de Paris joué naa ko musuma xam lu cachet mel mhm. té bu sa bu mo liggéey ba paré musicien ñing may dégg man may fay musicien yi tam papa dama ko wax né ko dama bëgg sama tarbiyu bi bu mako yakal yow lo am tiel man luma am ñu bokk c'est-à-dire luma nit mësan may ci sen bi dama koy dajalé tak tak tak tak sama contentement mo doon ah nako musicien mané wa fay na hôtel yépp ku ci nek jox na la sa per né wa waaw sek te manque beaucoup trop beaucoup trop Ça pas merci merci deux jours avant Je décéder damay génn ci hôpital bi ma dem mu ne ma ma merci je papa je ne ma déedéet Wally jërëjëf lenn nga ma desel ma ne ne je lañ loolu nga ma desel génne ma fi génne naa ko fa yóbbu ko fi ma ko yóbbu muy bàmmeel yow est-ce que duñu <laughs> dañ dem feneen dañuy génn fee parce <laughs> ah, ah. xam nga Ramadaan employé laa fa woon <laughs> Ramadaan employé laa fa woon mm. yàlla di dogal may jouer ñaari morceau wàcc deux personnes ñu taxaw ci piste bi ma koy non nan nànk nànk jour ma décidé ñëw sama papa ne ko bëgg def sama soirée bob, daf mo wax euh, xam nga boîte bi ñaata ngay fay. Mhm. mu ne ko mu ma temps laa la koy loué. Euh, xam nga musiciens yi li ñuy fay ak mu ne ko déedéet ko de mu ne nga di fay mu ne non commencé def sama soirée bopp. fay boîte bi fay material bi fay musiciens yi. Ah rien n'est facile à mes débuts rien n'est facile. mais boo taxawee ci kanam nga xam ne fi nga taxaw nii yow sa papa moo fi daan taxaw. ñoom ñu nekk sa ginnaaw ñi daan nekk sa ginnaaw papa yow ban bët nga leen di xoolee sa bëtu papa bëtu frère wala sa bëtu say employé. non non non non. tàmbalee ci chef non bi may tàmbalee bi may tàmbalee man employé woon employé. laa woon comme man. actuellement. Mhm. si saal bu xat ba rek. saal bu saal bu 15 personnes. samay frère lañu répété laa koy wooyee. Mm. le chef de caisse père laa koy wooyee. yàlla xam ne du siggi xool ma. Papis, quand je suis malade, il est je ne pas bien, il pleure. ñëpp xamee nañ ko loolu. Cheikh Anta daf may sama tëggkat daf may xool di jooy day tëgg di ma xool di jooy. xaalis it ñoo ma gën a bëgg. dañ ma bëgg en fait dañ may dama yàgg dama dama màgg ak ñoom. mes frères.

Moi, je suis pas Dieu. Mais en cas de frustration, Wally, il y a un Dieu qu'on est Alors, euh, sur ce bijou... Wally ne répond jamais. Ouais, ouais, quoi Quand Wally préfère chanter, il répond. Non, je préfère. Wokolaj quand la Am une question que le Bijou se ça par rapport à sa papa est-ce que sa papa il te manque léegi man damay jël même question Vous posez le est-ce que il te manque. est-ce que me manque. Écoute, euh, Ahmed, c'est mon grand frère. man nag du ma fowuma ah. damay wax li ma yëg. c'est mon grand frère. il restera toujours mon grand frère. dama ko fekk ma nekk suma waajur. ah Ahmed léegi. non xaaral waaw def leen leen nang. ak dama ko fekk ma nekk suma waajur. ma ñëw fekk ak suma waajur. mu bëgg Papa d'accord alors yàlla ma dem ba téye groupe bi yàlla jiital ma il restera mon grand frère mais il va rester tout le temps mon employé aussi loolu la yàlla dogal ah, ah ouais non loolu la dogal I love you so much loolu la dogal donc ah euh, ah, vraiment pour man ce qui de ce qui doit se passer loolu entre man ak Ahmed la et eh, yoonu public bi new ci waaw pourquoi Wally ku ko mere rek dem ci réseaux sociaux yi I don't know waaye man léegi la ñu tooy ma tooy ñu metti sama gars yi te du ma. mais monsieur du ñu dugg Londres Paris. ah ñu ngi Paris. maa ngi posé buñ la question ba nga wax. parce lekkuñu naanuñu te kenn yëgul xiif man dimanche 14 a tëdd. waaye de Paris. ñi ñu ngi wax rek. waaw mais yàlla xam na ni xool naa ko moom yërëm ko.

heure bi nga war a ñëw rek nga fay sa téléphone. bisu xam na ci dara. mais force bi lan la woon après. 14 heures la ñu am sonu. 14 heures 14 heures. 14 heures à 4 heures du matin am. kii la ki ñu jël le 3. moom il est surbooké. te loolu dem parce que dafa am yoraan garos bu mhm. nañ ba Allemagne pour wuti matériel bu ñu teg Dôme de Paris. ku ñuy woo bu ñu jéggewoo ci kaddu nga ne yaa ngi ñëw. doo ñëw doo ñëw.

donc ñaari poids yooyu yëpp muy pression sociale nga ñëw salle bi amagoo sono ñaar yooyu yëpp mu nekk sa nekk si man moom ak lu mënoon xew xamoon naa ne dinaa ko mbala. ah de choses que lui il n'a pas. ak retour yi nga naroon am yëpp. bëgguma dugg dama bëgg nekk ci sama rythme confrontation. xamoon naa ni